تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara bu baax a baax a baax di leen balaq itam di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal E gannaaw ba nga xamee ne nuyu nañ leen itam di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam tey nag dañoo waxtaan woo xam ne wii waxtaanu waxtaanu lépp la ndax boo tuddee jikko rek tudde tudda tudd nga nit ki tudd nga comportement am tudd nga ay daanaka léppam ñu dalal fi nag tey Serigne Babacar Mboup mi jàkkaarloo ak noonu nga xam ne mi ngi bokk ci mbootaay gi nga xam ne moom la ñu duppee sàmm jikko yi jikko nag moom daanaka bu dajee ci nit ju rafet ja nag moo tax ñuy wax bu dañee ci nit moom daanaka xaw nga ko mën a booleeg bàyyi ma yi alxuraan mi ngi naan am na sax ñoo xam ne daanaka sax faf bàyyi ma yee leen tane hmm. te loolu nag moom tawarkal la yàlla ci yàlla musal hmm. mu mel na nag euh, ñu ngi lay jox kàddu gi sëñ Babacar Mboup ci li nga xam ne mooy as baab yi tax nga teew fi tey jii ak mbootaay gi nga bokk itam mu di sàmm jikko yi ak itam di dellu di nuyu imaam Dame Ndiaye tabaarakallaahu gannaaw yàlla émission bi eh, def na ci ay jéego. Mhm. ba suñu borom sottal ko ñu ngi ko ci sant moom itam ndax moom itam ci yooyu rek lay dox. Mhm. tabaarakallaa ko nag alkalaamu maak. waaleykum salaam wa rahmatullah wa mhm. maa ngi lay fay nuyoo. Euh, di la delloo ziar. di nuyu tamit euh, waa kër gi yëpp. Euh, teg ko ci sa loxo. di nuyu téléspectateur sénégalais yi nga xam ne ñoom ñuy topp yëpp. Euh, di am mbégte lool wax dëgg ci jotaay bi. Euh, au passage di nuy imam Dam mm-hmm. effectivement mm-hmm. Euh, ci yombal gim yombal ak jàppandal gim dox ci diggante bi. di la nuyu di la ndokkeel nag. ndax xam nga vraiment mbégte la ci ñu gisee. Mm-hmm. mbégte la aussi ci ñu dajewaat. jotaayu tay bi nag di bu am solo. ndax ñu jëmee ko ci li ëpp solo ci kaw suuf si muy jikko. kon yaakaar naa waxtaan bu am solo la yàlla na borom bi dimbali ñu. ba ñu ubbi ñu suñu dënn. fasaa fecc ñu suñu làmmiñ ba waxtaan wi doon woo xam ne wu am njariñ la mm-hmm. wu nu mën a jariñoo aussi mm-hmm. may nit ñi aussi ak dégg ba mm-hmm. lañu ci bëgg it ñun ñëpp ñu maase ko am te mooy jariñu kese incha allah maanaam sëñ Babacar man li ma jaaxal mooy loolu ñun ñëpp koy dund li ñu yóbbu ci violence bii nga xam ne léegi dóor nit aw doj mu daanu wala nga tuur deretam yow daanaka yow maanaam du problème ci société bi loolu yéen ñii nga xam ne da ngeen di sàmm ndax sàmm nag moom <laughs> daanaka ku ko ko wax da ngay korkoral ak fu ne ko dugg fa <laughs> waaw waaw sëñ bi loolu moom ban jàngat ngeen ci am. waaw jàngat bi <coughs> weesuwul ni xam nga léeg-léeg bu jafe-jafe amee. Mm-hmm. Eh, dañoo war a dellu ca yay sabab ya. Mm-hmm. ya ko waral. Mm-hmm. waaye duñ rek di focaliser wu ci jafe-jafe ba la mu jur. ci conséquences yi ci conséquences yi. waaye dañoo war dellu ci causes yi tamit xam lii lan moo ko waral. lii nit ku baax daan wax naan li dikk lu ne la ko ci indi. maanaam mm. li ko indi dafay am solo ñu ñu xam ko. Mm. Euh, violence bi jékki-jékki rek yaatu ni mu yaatoo. Mm. Euh, am na ay facteurs yu bari yoo xam ne moom moo koy expliquer. Mm-hmm. te lenn lu ci nekkit bu ñu ko xamul ba mën koo saytu teg ci baaraam. Mm-hmm. ngir ñu am ci saafara lu jafe-jafe lay doon. ndax toujours am na ci fànn boo xam ni mën naa répercuter waat fi mu nekk nii boyalaat loola muy violence bi. xam nga borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moo bind nit. Mhm. moo tànn jikko yu sell itam. boo mhm. ko tal te loolu mënees naa tegtalu ci alayhi salaatu wa salaam li mu wax rek ni innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq mhm. yónni wu ma loolu moom mottali xeetu jikko yu rafet yi. loolu mënees na cee dégg ni jikko yu rafet yi yonent bi di wax ni dañ koo yónni ngir mu mottali ko du moom moo ko fi indi ci kaw suuf si. dafay fekkoon li ñuy wax un yi yonent yi ko jiiti woon am na lu ñu ci jàngale. luñ ci taxawal luñ ci taxawal ba pare. Hmm. tabax ko moom mu ñëw nag doon complété doon mottali li nga xam ne moo ci desoon moom mi nga xam ni moom lañ yónni ci ñëpp. Hmm. alors loolu kon wane na ni kon euh, liggéeyu yonent yi moo doon defar nit ñi def ci ñoom jikko yi nga xam ni yàlla moo leen ko tànnal ñoom. Hmm. wane ko ci ñoom bañ incarné ko ci kaw suuf ba noppi ñu war ko suuxat nag di ko sàmm. kon gis nga ni kon yàlla mis euh, sàkk nit sos ko. moo tànn tamit ay jikko yu rafet yi nga xam ni moom mooy jëm ci li ñuy wax humanisme mhm. pour nit mën a nite nekk ci nekk ci kaw suuf si bi loolu amee tamit dafay mel ni faaw dañ koy jëfe danañ ko jàngale mais danañ ko jëfe mhm. mais jëfe googu bu jàllee tamit faaw ñu bàyyi ko fi comme aki man koo sàmm nag aar ko mhm. pour loolu nit ñi di ko donnante loolu doon loo xam dana indi ak dal ci kaw suuf dana tax nit ñi mën a jëflante léegi nag <clears throat> kon su fekkee loolu am na ba ñu gis jikko ju baax jikko ju rafet ba nit ñëpp admettre ko nangu ko yii tax jafe-jafe di ci am mu xaw di yàqu bari na rawatina ñun ci suñu contexte bi ñu toll nga xam ni dañu am ay république lépp ñu maase ko boole. Hmm. kon da ngay gis ni kon dafay mel ni république bi wala état daf ciy am wàll. mais société bi daf ciy am wàll aussi parce que souvent nit ñi dañuy bëgg di critiquer rek. Hmm. diw sàngam deful lii wala état deful lii mais société daf ci am wàll. Hmm. te société buñ ko waxee dellu ci famille kenn mënta wax société waxoo famille. famille bi nga xam ni les valeur de base ñoom ñoo koy faral di transmettre fi mu ne njaboot gi. suñu génnee li daara war a def li état war a def mën a compléter. ñoom famille aussi dañ ciy am wàll dañ ci am cër. Mhm. waaye yemul ci loolu fi mu nekk nii structure bi nga xam ni moom mooy <clears throat> tabax nit ñu koy wax daara. Euh, mën koo duggal rek ci en fait un système éducatif. Mm. moom tamit dañ ko ci doigté parce que daf ci am cër daf ci am wàll mooy façonné nit lan mooy li baax lan mooy li nga xam ne kenn waru koo def fan ma war a doon limite diggante nit ak nit bu ñu seqee yooyu yëpp fi mu ne lu ñuy définir ci société la te loolu très souvent mhm. ci système éducatif boobu lañ koy jëlee ak nag aussi am benn système de répression boo xam ne bu ñu tëralee ba ni lii dafa baax lii baaxul nit ku jalgati loolu système boobu dafay dal ci yow te du ci xàjjatle mhm. yow xam naa la wala man xamoo ma loolu du ci xajatle moom dafay nekk ngir ñu saytu lii sàmm ko rek finalement dañuy gis ni yii yëpp ay faay am na ci fenn fu ci nekk facteur bu ci nekk am na faay boo xam ne am na ko ba loolu mujj conjugué nit ki bàyyi koo woon ci kër ndeyam mag baayam mi nga xam ne ñoo ko seqoon léegi daanaka talatuñ njaboot gi. toppatoowuñ leen sax. talatuñ ko. Mhm. ndax lan fi mu ne ay contraintes yoo xam ni le plus souvent économique la. Mhm. te contrainte économique yooyu. Mhm. soo koy bëgg expliquer fan lay jëm oustaz. mi ngi jëm rek ci wut ay gadget. fi mu ne man mii su ma jëlee sama ñetteeli maam donc. bi may am fanweeri at li ma fi daje ci wërsëg ci sama loxo. Mhm. sama maam dund na ba jóge fii amu ko. amu ko li fi romb ci sa baaram kese ci lu amu ko. Mhm. loolu moo lay wax ni fi ñun ñi mboole sinu sunu maam li mu soxla woon ba dund quatre-vingts ans ci dund gu teey gu dal. Mhm. ñun doyuñu presque sax ci ñaari at <coughs> ndax lan société de consommation la. faaw ngay jël xam nga ndox mi léegi da ngay dem jënd mhm. da ngay fay courant bi te yooyu yëpp suñu maam yi dañ dem niitu rek dem gor ñëw taal dem ci teen bi rek daal di daal di kii wala ci sayam bi dem ci tookóor bi dagg na gis nga yooyu yëpp fi mu ne da ngay produire ay effort mhm. liggéey joxe sa xam-xam joxe sa doole joxe sa jot pour mën a am as loo xam ne mu ngay jënd loolu consommer ko mhm. léegi nag puisque yooyu yëpp daje na am ay gadget yoo xam ne daf ciy dolli kuwaat waruma ko mën a ñàkk il faut ma am télévision il faut ma am oto il faut ma am lii il faut ma am lii il faut ma am téléphone bu cher loolu lépp da nga produire ci effort lu bari loo xam ne li mu laaj mooy faw nga bàyyi njaboot gi dem wuti ko njaboot ga nga bàyyi nag fi mu nekk nii bàyyi nga espace kon boo xam ne la nga temps ba nga waroon a nekk ak ñoom pour jox leen ci jikko pour léebal leen parce que léeb lu amoon solo la mhm. pour tette leen loolu dootoo ko am génn nga ca suba teel sa kër ngoon ngay jël si waat sonn nga journal nga laaj reer da dem nga tëddi waat mhm. surtout sax bi xewee ku wàccit fi mu ne miy noppalu mi ngi sëgg ci téléphone am rek léegi kon lan lay defati ci njaboot ban valeur de base lañ mën a amati ci njaboot oustaz mhm. loolu benn faay la fi mu nekk nii te ni bàyyi bi génne it noonu la ndey ji génne mhm. ñoom ñëpp génn fi nekk nii bàyyee kan njaboot gi xëj na bon bi bàyyee ko télévision bi bàyyee ko internet bi bàyyee ko mi ak waañ wi ak waañ wi léegi oustaz kooku fu jëlee valeur de base muy benn bu ñu génnee ci société bi tamit ñii ma wax léegi ci kër gi ñoom ñoo dajee ci société bi kon foofu lan moo fay kenn ku ci nekk ñoom amuñu ay repères yu wóor yoo xam ne mën na sañ cee sukkandiku def lu baax ak def lu yiw mhm. kon kenn ku ci nekk da ngay def ca na nga ko yëgee rek ak na ko gisee mhm. kon gis nga loolu bomb la bu bu rëy rëy su ko defee système éducatif bi it actuellement ci àdduna bi constaté nañ ni defaratuñu ay nit ñoo xam ni euh, surtout dañ leen di gën a gax ci ay valeurs ci productivité rek la ñuy seet. nit ki nan la ñuy tàggate ku xarañ koo xam ni li société bi maanaam entreprise bi mu war a liggéey ëllëg. ay ingénieur et cetera soxla na ko rek moom na xarañ. waaye valeurs yi moom jiitaluñ ko ci. loolu aussi ça pose problème nga xam ni da nga gis koo xam ne xarañ na xam-xam bi macha allah ñëw na lool ca fànn googa waaye léeg-léeg nag valeur yi mu war a am muy ay valeurs humaines dafay faral di des aussi loolu aussi beneen problème la. Mm-hmm. su ko defee état yi tamit am ci problème. état am ci problème ndax état moom mooy ki war a régler loolu lépp fi mu ne moom moo ko war a réguler ndax moo nekk ci kaw ñëpp. Hmm. su ma jëlee exemple ci benn réew boo xam ne mel na ni par exemple Chine wala Iran. Hmm. mais Chine par exemple boo gisee tey nii réseau social bi yaatoo. Hmm. nga xam ni kenn ku ci ne ak accédé na ci. bu njëkk boo demee ci les années 70 Sénégal pour nit waxuma wax ci télé. waaye génn ci rajo rajo rek bu génnee nit ñi mën nañu génn di ko ziare déglu rajo rek kay nga exactement. et c' était pas donné à n'importe qui mu wax aussi. Mm-hmm. ndax boobu dañ koy tànn ci nit koo xam ne xool nañ ko ba xam-xam ba mate na ko jikko ja mate na ko mm-hmm. kooko mën di porter ay message di ko véhiculer di ko wax ñëpp di ko dégg ñëpp di ko dégg mm-hmm. léegi lan moo am léegi ñëppay wax mën na maa tëju sama nekk du ma xam ne ba wax du ma xàmmee di wax lu ma neex te fi mu ne ñëpp ñooy mën a jot ci loolu loolu aussi ça pose problème te lool bul fàtte ni xale yi ñoo ngi koy gis am beneen élément boo xam ne bu am solo la man ci gis naa ci yàqu jikko yi mooy xam nga coono bu ne sonn ngeen ko et yéen ñu delloo leen jukkal ci taxawaay yi nga xam ne yéen a ngi ko am. Hmm. njàngale mi ngeen di jàngale ak nit ñi di leen woo ci. Hmm. ak mbaax aw yiw. ak njub ak hmm. defar. ci lu loolu ñëpp dañ leen ci war a delloo njukkal. gis nga très souvent seen liggéey. Euh, xëy na nit ñi niñ ko war a gisee ba mën ko ñu apprécier dañ ko dul faral di gis. mais yéen a ngi taxawee ci réew mi rôle boo xam ne si mais c'est extrêmement important wax nañ ba sonn. wallaahi alazim laa te xam nga wax dafa dafa metti dafa metti trop sax waxtu wu ci ne. di woo nit ñi ci lii mooy schéma bu baax bi lii mooy modèle bu baax bi. Mhm. lii mooy lu baax. Mhm. man de maa ngi ciy jéem a nekk. Mhm. kaay la ñu jéem cee nekkandoo. d'accord waxtu ne nga koy nekk léegi ma daaneel foofu rek. fi ma gis jafe-jafe am ci mooy. tey su ngeen waxee xam nga wax li muy rëy rëy. jëf daf ko ëpp solo. da ngay gis ni léeg-léeg da ngeen wax ba sonn. nit ñëw ci seen wet posé act boo xam ne dafay dindi li ngeen waxoon. à la minute par exemple bu ngeen ne. nit warta war dafa war a sàmm kàddoom. nit dafa war a jub tey jubal. Mhm. nit dafa war a respecté ni mu li mu bëgg ci boppam ñu koy defal. Mhm. war na ko yéene keneen war na respecté nit ñi. waxtu wane ngeen koy wax di ci soññi. mais sur le champ nit mën na poser acte boo xam ne dafay weddi loolu. te acte boobu souvent mooy ëpp impact ci société bi xam nga bu fekkente ni nit dafa seqante ak euh, nit ñu waxante am ku ca war. ka ca war ñu jël ko promouvoir ko dalal ko ci barab bu rëy rëy boo xam ne askan wépp ko bokk. Mhm. loolu fi mu nekk nii euh, loolu. Mhm. maanaam image bi xale yi gis parce que mhm. ci jikko la ñuy wax mhm. xale bi man mi ma xam mais man awu ci problème man na maa def la distinguo mais xale bi lan lay gis dafa naan oustaz Maodo de nee woon na yàlla lii la wax ci ak mbaax wala war wala kóllëre wala yu ni demee waaye gis naa ni kóllëre gi génneel ma beneen message boo xam ne askan wi yëpp ko maase bokk te kilifa gu mag moom moo ko def dalal ko ci lu ñëpp maase bokk te ñëpp maase ci noppi message boobu mooy gën a jàll fi nekk ni ca wax ji ma doon wax. du du ñam sax. donc kon gis nga lan moo waral fi ne jikko di yàqu problème ah, wax ma yaa des problèmes sax lay wax. <laughs> <laughs> maanaam est ce que yaa jàppaloo ne euh, comme li nga wax léegi tudd ko ci réseaux sociaux yi mm-hmm. internet bi est ce que du monde bi dafa nekk ci mutation. ci jóge ci benn marxala jëmaat ci beneen marxala surtout pays africain yi nga xamee ne ñun dañuy langaan ci Occident rek lu xew rek ñu daal cee ne roy dàq ak yu demee noonu est ce que. bon parce que tamit yi xamuñu ko woon comme le dans les années 70 nit ñi duñu wax ci rajo doo dégg téléphone léegi nag tout est accessible. Euh. mais bien sûr xam nga àdduna dafa am euh, maanaam mutation. yu xóot yoo xam ni fi mu nekk nii ñoo ngi koy subir. Mm-hmm. Euh, souvent man dama koy faral décrire ci évolution boo xam si àdduna daf ko am. Mm-hmm. évolution xam nga jamono am nañ ci jamono yoo xam ne ñoo ngi toll woon ci li ñuy tuddee l'ère des tribus bi. Mm-hmm. Euh, booba xëñ na nit a fi nekk am dooleem. Mhm. imposé ko nit ñi mën a doxal. nit des topp exactement mhm. ñu dem a dem ba ci yàgg jóge ci ère boobu dem ci beneen ère bu bees. Mhm. ñu koy wax l'ère des monarchies. ère des monarchies tribu yooyu bi ñu toogee ba ki gën a dëgër mbooloo watu ko loolu daal di doon seen moomeel. donc ñu tranché dem ci ère des monarchies donc réglementé ko donc buur yi nekk fii Kajoor Bawol ba tey jii sax am na ay jeexit ci àdduna bi ay disit Espagne golf bi moom waxaale wu ma ko. Mhm. alors léegi nag ñu jógee ci air boobu dem ci li ñuy wax air des républiques. ñu gën a léegi décentraliser yëf fi delloo yëf yi ci askan wi indi ay jumtukaay ak yamu dëppool waaye fi mu ne dina jógee ci loolu nag dem ci beneen air bu bees mooy bi ngay wax ni non bi moom c'est euh, compliqué fi mu ne muy l'ère des conglomérats mhm. nga xam ni daanaka li yilif nit ñi ak li leen di régir fi mu nekk nii maanaam doo ko xam sax. Mhm. fi ne doo ko xam euh, dafay am ay nit ñu euh, am doole ñoo xam ne. kenn falu leen kenn joxu leen kàddu te très souvent li ñu bëgg mooy am. ay lobby lay doon ay ay lay doon donc lañ toxalee en fait euh, l'ère des euh, conglomérats. Mmh. Euh, te am nañu doole ak man financière bu dëgër boo xam ni. Mmh. daanaka tey bu ñu bëggoon a soppar ñi fii ak ngoon li nit ñi jàpp ci seen xel sax mën nañ ci lu. bare bare bare évidemment ndax lan puissance li ëpp solo. mooy fi ne fii ñuy waxtaanee muy les médias. c'est sûr dafay. Euh, euh, dafay ñoom ñoo koy gérer euh, pratiquement. mais exactement <laughs> plus de 90 pour cent des médias ci àdduna bi ñoom ñoo koy gérer. kon gis nga lu ñu bëgg mu véhiculer dafay jàll. Mhm. alors lu mel noonu nag suñ ko amee da ngay gis ni askan yi fa ñu jaaroon waroon nañoo nag jéem a jël élément bi en compte. jéem koo xool ak dëppale ko seeni réalité mhm. bu bañee ñàkk yu yu baax yooyu nga xam ne amoon nañ ko. xam nga tey bu njëkk <coughs> soo amee sa doom. damay jóg man na maa wut oustaz wala ma yóbbu ko ci daara ji wala ma ni xaaral ma jox ko sëñ Maodo mhm. ndax seet naa ko jikkoom doy na ma xam-xam doy na ko mu yaral ma ko jàngal ma ko yóbbu ko ci daara ji mhm. xam nga loolu lañ xamoon mhm. loolu moo amoon ci réew mais léegi nan la demee léegi ñun ñëpp am nañ beneen oustaz ak sëriñ boo xam ni dafa suppléer euh, sëñ Maodo Faye mais suppléer aussi sëriñ si fi nekkoon suppléer en fait waaraatekat yi suppléer aussi imam bi muy la télévision ay eh, la télé kii à la maison même mooy mi ngi ci biir kër gi léegi oustaz bi mi ngi ci biir kër gi imam bi mu ngi ci biir kër gi sa sëriñ mi ngi ci biir kër gi et malheureusement waxatul rek lu jëm ci diine lu mel ni dana fa jàll waaye bu jeexee leneen mën na faa ñëw loo xam dana fëkk nit 95 pour cent jërëjëf kon nag da ngay gis na ni kon. loolu élément bu am wax ni pour dogguma la Babacar yaa ngi wax lu am solo. parce que dafa am benn président benn chef d' état africain génn àddina muy Thomas Sankara. Mhm. Thomas Sankara dafa waxoon ne abal ma sa cinéma ma yaral la say gone. mais absolument <laughs> mais <laughs> wax jooju dara di ko dindi. moo ko wax maanaam sag ndaw ñi. fi mu nekk nii cinéma bi. Mhm. ak te xam nga théâtre bi sax fi nekk nii. finalement da ngay gis ni xale yi liñ ciy gis lépp. moom mooy doon suñu société suba léegi incha allahu rabbi d' accord mbokk yi ma fàttali na ñu ngi ci yoon wi ak euh, Serigne Babacar Mboup mi nga xam ne mu ngi bokk ci mbootaay yi nga xam ne moo di sàmm jikko yi xam naa sax loolu moo tax mu am maîtrise ci ni muy ni muy développé parce que dafa nekk lu linéaire mm-hmm. lu leer nañ la tamit lu waadix maanaam mm-hmm. alors Euh, consequement maanaam li mu yi yi yi muy jur li nga yaa ngi koy xaw a cof tuuti rek lu mel ne lobbying yooyu nga xam ne ñoo yore àddina bi franc-maçonnerie ci la bokk. Hmm. borom ñaari tur yi ci lañ bokk et cetera et cetera alors que yow wax nga reconnaître nga ni c'est une très grande puissance. absolument est-ce que loolu xeex ko yomb na. ah bien sûr mais du lu jafe. <coughs> xam nga ah du lu jafe ah ndax jafe du lu jafe. xam nga li jafe. du lu mooy dëgg-dëgg moom kattan xuwa moom yàlla rek moo ko yor. Mhm. ñoom dañu organiser wu donc man en boo leen di gëstu sax da nga leen di naw parce que dañu organiser wu. trop beaucoup trop organiser wu nañu fexe nañ aussi ba moyens yi ñu soxla. Mhm. fexe nañ ba teel ko am amal ko seen bopp. te ko bokk ci ñoom jox la moyens absolument donc ci fànn googu da nga leen di naw wax dëgg yàlla ndax xam nañ li ñu bëgg te it ñoo ngi ci xëy ak di ci gont par contre jafe-jafe bi euh, en fait euh, euh, ñu bari am rawatina le monde islamique mooy ñàkk def li ñee def. c'est ñàkk boole seen bopp. Mhm. ak l' essentiel ñu fexe ba seen i moyens ñu jëmee ko ci xam nga damay wax très souvent xam naa ni euh, peut-être man dama am rapport ak li ñuy wax ni sax mais damay wax ni souvent. Mhm. problème Sénégal problème bi mu am bi ci gën a rëy. Mhm. xam nga lan la. Mhm. jafe-jafe bi ñu am maanaam cause yi ma la doon wax. pas le problème mais cause yi. li indi suñu jafe-jafe yi xam nga lan la. mooy boddi gu ñu boddi li ëpp ci askan wi ci ñu mën a doxal réew mi boo demee ci constitution bi article vingt xam nga dafa wax ni képp ku mënta làkk français mënoo ko bind mënoo jiite réew mi. déedéet. loolu boddi la tubaab yee ko fi bàyyi woon mais mais ah, foofu nag la jafe-jafe bi ah. nag lii rek moo ñu indil jafe-jafe ñu xam nga li tax ñi nga xam ne yéen tey yéen a jaar ci daara yi nàmp fa ba ñu toqantal leen ci ba wàcce leen fa mm-hmm. ngeen xam ne am na loo xam ne ruus ngeen ko jomb ngeen ko mm-hmm. maanaam nit ñi teew ak nit ñi bañ a teew ngeen ci yemal da ngeen jomb ngeen logique très logique n'est-ce mm-hmm. ñoo xam ne jaaruñu ci loolu rusuñu ko jombuñu ko te mën nañ ko def fi mu nekk nii kon su suñuy jot suñu indépendance ginnaaw bi ñu joñee quatre cents ans teg ci pratiquement un siècle boo xam ni colonisation la ni da ngeen di moom seen bopp Sénégal yëpp waroon a moomandoo seen bopp ñun ñëpp ñu toogandoo ci penc mi daan ni léegi kon nañu doxal askan wi yëpp it am sañ-sañ ci ku ñu bëgg a rek ñu jiital ko waaye dañ ni képp ku tubaab bi nàmpalul ba feral la fi ne mënoo cee bokk. mais loolu c'est dans toute jiit moo tax ñu am jafe-jafe nag euh, euh, oustaz. <laughs> loolu daal li nga am Mali moo am Burkina Faso. moom daal am na ñu ci mu nekk nii. boo gisee problème bi ñi mu gën a metti ci ñoom mooy francophonie rek. surtout mais anglophonie lusophonie sax loolu dalu leen. waaw ñoom dañuy dem pays arabe yi aussi man waxaale wu ma ko ñooñu taat que génn nañ ci ci ci nooteel googu. Mm-hmm. ñun rek ñoo ci des ba tax na kon Euh, fi mu ne euh, réew mi daal toll na foo xam ni. Mhm. maanaam euh, jikko yi yàqu nañu yàqu boo xam ni. Mhm. toll na ci dégradation boo xam ni maanaam c'est inquiétant. Mhm. rawatina violence bi nga waxoon sànq ni surtout. violence bi barki dem dégg nañ ko ci làmb ja dégg nañ ko ci football bi ñu ngi koy dégg ci arène politique bi ñu ngi koy dégg foo tourner violence violence verbale violence physique effectivement parce que violence dafa yaatu xam nga loolu la mais bien sûr xam nga violence ni mu amee violence euh, verbale noonu la amee violence morale. noonu la amee violence euh, psychologique noonu la amee violence euh, mm-hmm. physique et cetera et cetera. Mm-hmm. xeeti violence yooyu nag Sénégal xamee ñu woon leen noonu. te société lépp la ay germes violence am. Mm-hmm. ndax nit ñi foo dem. bis bu ne ngeen fàttali ko di ko jàngale. li ëpp ci nit ñi dañoo xamul. Mm-hmm. jubuñu. Mm-hmm. Euh, et cetera walakin aksara naas ñoo gis rek. Ah. laa yàq la majorité <laughs> kon xam nga ñooñu dañuy liggéey ci ñoom. Mm-hmm. pour di leen orienter. sinon ñoom désorienté wu nañ d'abord ba pare. alors loolu nag ku am lu mel noonu. va falloir que ni ñëpp kenn ku ci nekk la nga man ak la nga mënul ñu jéemandoo ko. pour fexe ba préserver fi mu ne jikko yu am solo yi ñu ci fi ah, ma bàyyi gis nga Sénégal <coughs> oustaz mën nañoo doon réew mu ndaw. Sénégal mën nañoo doon réew moo xam ne it xëy na alal ji bariwul. Mhm. mais am na ci héritage ci ndono loo xam ne Sénégal yaakaar naa ni ñëwu ko ñu bari très sincèrement ci mag ñu baax ñoo xam ne jaar nañ fi. absolument loolu ndono nag gis nga bu ñu xefee danañ ko ñàkk tey jii. danañ ko ñàkk ndax lan ndax Sénégal ñoo ngi xaw a dem ci tangente boo xam ni presque benn constance rek moo am léegi ci réew mi mooy xaalis. xaalis rek. xaalis mooy bëgg a remplacer yàlla fi mu nekk nii. ëpp def. Ah, seetlu li ma lay wax rek. ci lu leen xam naa affaire bi. maanaam taxawal nga ni léegi yow da ngay wax ngir yàlla. amaana cër ba ngay war a am ci réew mi mën nga. non ñoo ngi waxtaan léegi rek avant émission bi ci loolu. sa cursus sa parcours fi nga jaar. Mhm. da ngay gis ni def nga ci réew mi ak njariñ loo xam ne si tey jii waroon nañ la reconnaître maanaam du point de vue maanaam en fait euh, social rek. waroon nañ la waroon nañ la reconnaître. absolument mais reconnaissance boobu tey ji amul. déedéet te tey jii amal alal. yoral ay milliards fi mu ne lu la neex nga wax lu la neex nga def bunt boo fëkk mu ubbeeku fépp nag fu sam xel dem rek boole naa ko ci lan moo ko waral kon doonatul li ngay incarné ak valeur yi mais alal jee tax te loolu tamit xale yi ñoo ngi koy gis gis nga dama waxoon en 2004. Euh, plutôt 2006. Mhm. xaw na yàgg tuuti. Mhm. bi ñu waxee xale yi ak mbënd mi mooy seen euh, euh, sóobu gu njëkk ga rek. ay les années 2004. ma leen xale yi mais xale yi xale yi ay victimes lañu. est-ce que xamuñu ni xale yi ay victimes lañu. Hmm. oustaz bu ñu xoolee Sénégal li muy doxee. Hmm. ñaari pôle moo fi am ndax ñun dañoo am jafe-jafe ci moom maanaam nit lañ boo xam ne ñaari bopp la am. Hmm. dangay am kilifa ci diine am kilifa ci wàllu yàlla. Euh, ci wàllu àdduna. donc muy politique yi ak niti diine yi. donc ñaari bopp moo sax suñu suñu suñu kaw. Euh, muy temporel bi ak spirituel bi. léegi Sénégal euh, ñaari bopp yooyu bi ñu demee ba par exemple ba ci mille xale yi tàmbali gimmi di xool. gis nañu bi le régime socialiste daanoo le régime libéral dikk gis nañ ay virages à cent quatre-vingts degrés gis nañ ko ci ay niti diine gis nañ ko ci ay niti politique jóge woon ànd ak parti socialiste xeex bu nañu xeex ko fa jekki-jekki ñoom ñëpp soppi mbubb mi ñu soloon ànd ak les te booba du conviction politique ay intérêt rek ko waraloon xale yi xam nga dañuy jàngat loolu daal di gis ne ginnaaw ñii leen yaakaar ci àdduna te ñoo mën a taxawal yi pour ay intérêt mais kon est-ce que yëf yi nekkul ci wute xaalis rek ak noo amee ñu gisit ay nit yi diine yoo xam ne def nañ ko. Mm-hmm. mais les gens se disent ni mais attention est-ce que kon àllaaxira it ku yor xaalis rek doo jàll. moo tax xale yi ñëpp finalement mujjoon yegg ci ni Barça wala Barsax euh, Barcelone wala Barsax. Mhm. parce que ndekete li mat wut doonatul yàlla ñu baal ma ci waxin wi. Mhm. mais yaakaar naa comprendre nañ li ma ah, bëgg wax dañ ciy déduire nii moom wax ni acte yi ñuy posé dafa am sens dafa dafa dafa am portée. Mhm. il faut nit ñi di ko bàyyi xel. rawatina kilifa yi xale yi jàngat dañ naan mais attention kon wuti xaalis moo ëpp solo parce que gis naa ni su ma wutee xaalis ak nu ma ko amee. donte damaa jaay doom dama def daan ma respecté daan ma def reconnaissance bi nga xam ne daan ma ko ci jox. lii aussi bokk na ci sentir dans la société. en réalité gis nga kon jikko yi. Mhm. jaaragul ci yoonu defaru parce que nit mën naa bañ a xam sax porte bi fi mu nekk nii. Mhm. mais terewul acte yi ñoo ngi koy posé. tabarakallahu euh, parce que li nga wax dafa am solo ba dafa naan tekk di dugg parce que c'est très important alors dafa mel ne am ngeen ay objectifs yéen yu bëree bëri sax parce que kuy sàmm jikko yi lu bëree bëri mais xam nga coowal borom ñaari tur yi ah. a ngi ci xeex li ngeen man mhm. yéen a ngi am benn projet boo xam ne bi xëy na bëgg ngeen sax euh, xam fu ngeen ko ba pare déjà écrit c'est pare waaye dafa am loo xam ne daf ci am loo xam ne it bëgg nañ sénégalais yi xam ko ñu leeral leen ndax ñun kenn lañ rek ci sénégalais yi mhm. bi ñu amee gisee ni am na yoo xam ne mi ngi tàmbalee am ci réew mi mhm. Nations Unies bëgg a weñ loxo yi suñuy njiit mhm. ñun ci lañ xam ne askan wi ñoo mën a dimbali suñu njiit yi ci lu wér te loolu dangeen ko dégg ci kaddu gi euh, président Macky Sall waxoon en 2015 ci Itélé ni gouvernement bi amuñu ci problème waaye askan wi nag ñoom mën nañ ko gisee beneen gis-gis loolu dama gis ni diplomatiquement subtilement appel la bu mu def askan wi ci askan yu mën koo xettali ci xoj ko bëgg a alors loolu nag ci lañ jóge ñun ni ñun rek duñu askan wi. ñu jóg def les quarante cinq mais pas subtilement parce que il a dit autre chose hein, le président de la république. waaw il a même dit que tant que maa ngi fi. loolu kenn du ko fi jàllale wax na ne tant que mi ngi ci pouvoir bi ci législative kenn du fi jàllale affaire borom. kenn ko légaliser la kenn du ko waaw waaw mooy jàllale. légaliser c'est-à-dire boo ko légaliser du jàll. dafa am ñaari ñaari yëf yu bokkul. en euh, ngi mel ne mi ngi mel ne ci misaal dama koy misaalee euh, euh, waa ji jëloon surga. yor na njaboote njaboot ku jigéen. daan ñu magistère am daal la wax laa bëggoon a wax. waaw du ko légaliser. mais foofu foofu la moom laa bëgg a misaal pour sénégalais yi xam li mu bëgg a wax moom ñun li ñu koy wax ak li muy wax bokkul. Euh, léegi euh, waa ji jël na ab surga ni ko léegi nag man damaa njaboote ay jigéen ñoom ñoo dëkk ci sama ginnaaw ci kees gee. Mhm. mën ngaa liggéey ci kër gi yëpp waaye sa tànk bu mu dugg fee. bu mu dugg fee waaw bu mu fa dugg. ah ñu toog euh, weeru la mu dégg ay kër kër waa ji ñëw ba fekk surga bi ci néegu xale yu jigéen mhm. mu ne ko la waxoon fii du mu ne ko bu soobee yàlla kenn du ëmb ñun waxuñu ko problème boobu. c'est-à-dire moom mi ngi wax ni moom tant que mi ngi fi kenn du ko légaliser mais mi ngi poser ay actes yoo xam ne ci loolu la jëm. ah bon bien sûr. Ah la SNEC 2. la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre. Mmh. vision bi xam nga lan la. Mm-hmm. faire du Sénégal un pays émergent en 2026. avec une société solidaire dans un état de droit sans discrimination. objectif la. waaw mooy vision bi. oui mooy discrimination dafa am Sénégal si loolaa la wax xam nga vision mooy précédé toujours vision boobu mooy bu ñu àggee ci 2026 Sénégal kenn dootu fi boddi kenn Sénégal yow à part li ma wax sànq yi xam nga ku ñu fi boddi non kenn boddi fi mais lan moo tax état bi kon di am programme boo xam ni vision bi mooy boddee jeex ci Sénégal loolu mooy premier acte bi gouvernement bu Sénégal teg sur dix ans implicitement dafa mel am ñu doon. mais bien sûr am na ñu ñu bëgg a indiwaat ci biir réew mi. Ah, mooy 2016 ba 2026. Mhm. lii ma la wax ni gouvernement bu Sénégal moo ko liggéey. Mhm. yemul ci loolu dañoo changé constitution bi ci référendum bi. Mhm. boo demee ci article euh, euh, référendum bi xam nga 15 points la woon. quatrième point bi moo doon nouveau droit nouveau droit mooy àq ak yelleef yu yees. droit sur le plan international bi <clears throat> biñ ci xam mooy la déclaration universelle des droits de l'homme hmm? boobu 1948 la woon xam nga. les nouveaux droits mi ngi dëppoo ak résolution bu Nations Unies jël muy la résolution L7 17 L9. bu 15 juin 2011. Mhm. mooy les nouveaux droits Nations Unies moo ko jël. nouveaux droits yooyu la Sénégal indi inscrit ko ci constitution bi daal di koy leeral nag ci article 25 alinéa 3 xam nga lu mu wax dafa wax tout citoyen est tenu de respecter scrupuleusement la constitution les lois et règlements notamment d'accomplir ses devoirs civiques et de respecter les droits d'autrui droit d'autrui xam nga autrui nit la droits humains la. Mhm. autrui boobu mooy kan. waaw c'est vrai parce que quand quand tu dis droits humains globalement waxaale nga góor ak ah, jigéen bien mais autrui sax moom lañ ci bind. droit d'autrui ak ak ki ci des ki ci des mooy kan. c'est c'est c'est flou hein. ki ci des mooy kan eh, c'est un peu nébuleux comme on dit en <laughs> français. mais bien bi tegaat beneen acte. mooy seen le fameux euh, code de la presse. Mhm. orientation sexuelle lañ bind ci kii donc ça vient pour la première fois. Mhm. bi Sénégal amee indépendance ba tey baat boobu ñu def ko ci suñu texte de loi. Ah bon ak yeneen actes yu bari yoo xam ne même la question la question genre aussi se pose problème. mais bien sûr parce que genre comme ñoom ñoom ni ñu koy waxee. toujours problème mu xam nga tey man nii ma yàlla bindee. ku ma gis nii rek dana xam ni góor la mhm. loolu. phy morphologiquement loolu euh, waaw morphologiquement la euh, sur le plan euh, physique. par contre le genre liéwul loolu ñoom genre dañuy jàpp ni ay construction sociale la rek lan moo tax ñu bëgg nii tey sëñ Maodo kat moom moo war a dem wuti dépense damay misaal rek. Mhm. lan moo tax ñu ni jigéen gi moo war a toog ci kaw kër gi ci kër gi toppatoo njaboot gi lan moo tax at ñu attribué leen loolu. léegi nag loolu moo tàmbali indiwaat yeneen ak yeneen ak yeneen lan moo tax góor gi féete fii wala mu yor baat bi lan moo tax jigéen ji war a des fii am nañuy xeex am nañu égalité égalité léegi nag loolooy dem a dem a dem ba indiwaat yeneen question yoo xam ni dafay dugg mooy lan moo waral fi mu ne góor war a ni ñaari jabar daf koy am te jigéen ji amul droit ci ni day am ñaari jëkkat. am na ñu euh, koy déjà ñu koy wax. bien sûr am na ñu koy défendre dans les télévisions. xoola dama ni la. rapport bu Union européenne def sur le Sénégal genre 2021. ngi ñu bind ci nee nañ code de la famille bu Sénégal il faut article 111 bi 112 116 ak 285 ñu changé ko muy jëm ci par exemple durée de viduité maanaam tënj jigéen ñi dañ ñoo tënj. lan moo tax góor di takk ñaari jabar te jigéen am amul droit amul droit loolu tamit lan moo tax ci sëy bi aussi jigéen mooy doon góor mooy doon chef bi te jigéen aussi mënta doon chefesse et cetera et cetera donc xoolal fii nga xam la ñu jëm. alors ñun bi ñu ko gisee c'est anti islamique ah. mais moo taxoon sànq ma ne la problème bi nag loolu la. diine la xeex fi nekk nii. te loolu ñoo ngi koy doxal fi mu nekk nii ci réew mi moo tax ñun bi ñu ko gisee ñu ne lii amuñu droit ci téye ko suñu bopp moo tax on a fait les trois quarante cinq départements du, du Sénégal. wëri dem seet ak nit ñi waxtaan ak ñoom ci loolu yóbbu leen ay firnde aussi ci loolu. bi ñu fa jógee ñu ni Sénégal kat ni mu tëddee dañoo am ay kilifa nañ dem ci kilifa yi dem ci sëñ Babacar Sy Mansour sëñ Mountakha xalifa yëpp dem nañ fa dem seeti église catholique bi dem ci bois sacré bi. waxtaan ak ñoom dem ci syndicaliste yi aussi société civile bi maanaam ñëpp ñu seeti leen dem seeti parti politique aussi muy euh, Benno Bokk Yaakaar opposition bi bàyyiwuñu kenn ñoom ñëpp lañ dem seeti. bi leen seetee waxtaan ak ñoom ci lii ni leen ñun li ñu tax a jóg mooy lu defar suñu jikko yi ak lu sécuriser suñu doom yi ak ëllëgi réew mi kese hmm. ñun nekkuñu ci yi ngeen nekk xiiroobee ngaayo boobu hmm. alors lii nag askan wi yëpp ànd nañ ci biñ lancé pétition bi nag kilifa yëpp signé ko ñu def journée de mobilisation ñëpp taxaw ci lañ ne nag ah am na lu xew ndax ci question de principe lañ leen woo nit ñi wuyu nañu ci léegi nag nañu tëgg loi bi moo tax on a approché les meilleurs spécialistes ci biir ah, réew tëggal ñu loi bi bi ñu ko tëggalee ba pare ñu ni kat il faut ñu delluwaat defaat circuit bi ñu defoon dellu ci nit ñi dellu ci kilifa yi wan leen ñun li ñu wax ba xam ñoom ànd nañ ci wala ànduñu ci am nañ ci observation wala quelque chose comme ça bi loolu amee ba observation yëpp ñu dajale ko ci lañ daal di jóg nag dem ci député yi maintenant non pas jaar ci seen parti yi mais dem ci député yi waxtaan ak ñoom wan leen proposition de loi bi weccante ci moom xalaat ni leen nag dañoo am na député yoo xam ne pare nañu fi mu nekk nii pour porter ko incha allah dès prochaine pour ñu yóbbu ko ci assemblée hmm. loolu fi mu nekk nii ci lañ. toll pour parer l'homosexualité. pour pour ko rek ndax gis nañ lu muy yàq. Eh, genre quoi comme li nga ko waxee. exactement xam nga dafa am benn. mais ça sera très difficile waaw waaye euh, naa lu yomb la. non non man man effectivement mën na ci am gain de cause mais après bon suite. Euh, mais dara gis nga ñi dañuy wax rek. lu yàlla neen la c'est-à-dire ah, le c'est <laughs> lu yàlla neen la xam nga léeg-léeg dañ lay bëgg a xooxatal ba dugal la ci loo xam ne danga nga naan si kii bi disposition bi su ma ci amul recette wala ma négocier ci gars yi mën nañoo téye seen yoro bi ne nangam nangam mais Rwanda oustaz sori wuñu de Rwanda ci génocide la jógee 94 ah oui combien de personnes ñoo fa dee un demi million dem nañ ba nee nañ boo nee cëpp yi maanaam xetu nit ku faatu mooy mooy mooy mooy ngir ngir tout quoi tutsi ak outil tey jii Rwanda dem na bàyyi ñu en un temps record cest à ñoom liñ bëgg a gëmloo nit ñi loolu moom moo jaaduwul xam nga ñoom dañoo am ay jafe-jafe ñoom am nañ jafe-jafe ba fi mu ne seen sëriñ si muy tubaab yi buñ nee dafa weex ñoom duñ ne dafa weex dañ naan tal bu nee ñuul la ñu ne kukk duñ répété mu ko baat bi mu wax. c'est des suivistes quoi c'est des. lii moonu kii moo plombé en fait réew yi waaye gis nga wane suñu euh, taxawaay wane suñu mbatit mu rafet wane suñu ay valeur gëm ko ancré ci te dem ci développement maanaam c'est pas en fait antinomique du loo xam ne dafa safaanoo. Mhm. lu mën a nekk la. waaye il faudrait que nit ñi en fait bonne politique. bi pour mën dem ci mais jàpp ne la première autorité par exemple le président Macky Sall comme wax na ne moom yooyu moom comme moo fi nekk te kenn du ko fi légaliser c'est-à-dire que kenn du ko fi firndeel. c'est vrai que def nga benn démonstration ak mots yi quoi jeu de mots yi ci nekk droit d'autrui parce que là c'est autre chose parce que boo waxee droits humains mais lépp a mais quand tu parles d'autrui c'est comme daal ah, ah. ku nekk à côté. Ah, am na keneen ku nekk côté koo xam ne képp ñu koy séddale. koo xam ne te gis nga il la wax. tout citoyen est tenu la wax. à respecter le waaw moo jiitu phrase donc mais est-ce que yaakaarul comme le chef de l'État dégg nga ah. moom laa wax léegi nii. Ah, voilà c'est après que ngeen ragal. am na problème ndax fi mu ne euh, ji wuti nañ jiw bi ba ji ko ba mu ngi tàmbalee sax ba ñoo ngi koy roose ba noppi naan moom euh, maanaam meññet mi daal du am déedéet. ci loolu lañ jëm mais léegi lan ngeen bëgg par exemple si quelqu'un se présente comme un homosexuel dans la société moom mu dem di dox ay vagues assez préoccupation di dox. mais kenn amul sañ-sañu laal ko kenn amul wala. xam nga ñun homosexuel li ñuy wax góor jigéen. Mhm. ndax homosexuel baatu tubaab la. Mhm. wolof yi li ñu xam góor jigéen. góor jigéen boobu waaw wala borom ñaari tur yi. góor jigéen waaw lañ lañ xam. xam nga mhm. góor jigéen ñun nuñ ko doon tuddee. loo xam ne xam nga ko ma xam ko Sénégal yëpp xam ko mooy nit ku efféminé képp lañ doon tuddee. góor jigéen waaw efféminé nekk ci sabar yi. nekk jigéen ñi di fóot ak a togg ak a yooyu. pourtant dañ leen naan bàyyi nit ñi ñooñu lañ tuddee woon ay góor jigéen mais ñun suñu société ñoo xamul góor ak ba noppi bëgg ko imposer société bi jigéen jigéen ji war a koo xam ni en fait transgenre la war a doon man bi ma judd góor la mais neexatuma damay dem opéré wu ñu xaral la wut def wutal la am pëy euh, pikiir la ay hormone nga war a doon jigéen ñun xamuñu loolu. loolu bokkul ñun ci ci ñun. xam naa xam naa li nga wax. alors loolu la ñuy bañ ku ko indi fii ci réew mi moo tax boo gisee suñu discours toujours ñun duñu wax ci ki ko nekk dañuy wax ni agenda bii na taxaw. parce programme bi ngeen bëgg a bi na taxaw ba pare parce que li ñuy def nag oustaz c'est pour. et au compte au nom du du peuple sénégalais kon peuple boobu nga xam ne constitution bi. Mhm. article 3 bi moo wax ne ñoom ñooy kilifa gi maanaam am nañ droit de regard ci li ñu def ci seen tur di leen ko defal. absolument logique pour logique. te c'est la première fois xam nga ñoom bi ñu bëggee def seen i loi criminalisé. Mhm. vol de bétail dañ ko criminalisé. loolu président moo ko bëggoon. Mhm. dem ci benn meeting ñi rek dans le. ah non non léegi c'est criminalisé bi ñu bëggee criminaliser par exemple. le ci. kenn dañ ko bëgg criminaliser benn mbootaay moo jóg ni nañ ko def ñu def ko lan moo waral kon tout le Sénégal bu ma nee tout le Sénégal mooy bu ma waxoon ni sëñ Mountakha ak sëñ Babacar Sy Mansour ñoom ñaar rek bu ma ne woon ñoo ko bëgg rek wax naa ni c'est tout le Sénégal ah c'est fini bu ñu exactement kon ñoom bu ñu ko signé yemuñu ci dañoo bind not jox ma boole ci sëñ Babacar Sy Mansour ak sëñ muntaxa signé en fait la pétition ni ñii dañoo bëgg ñu def loi ba noppi arrêté agenda boobu mais kooku da gis ni volonté populaire la volonté nationale la. je suis te gis nga journée bi mbooloo mépp a génn. absolument mais gisoo ne gisoo ne tamit parfois yéen dañ leen di dañ leen waa. Euh, am sàmm parce que dañ naan bon d'après man li may for ci presse bi gars yi dañuy bind di sànni ci kii yi. ñu ne mais li fi nekk ci ay mbon-mbon naan sàngara sang yi pour ñu jaay seen bopp. Oh, mu ngi fi waxu leen énormément de bars de des de débits de boissons et tout. d'accord mais vous vous rek dem ca kaw alors que depuis des siècles ça y est là dans ce pays <laughs> est-ce que loolu du paradoxe. ñoom nag ñoom nag ñi wax loolu am na njuumte boo xam ne def nañ ko. mooy lan man d'accord naa ci li bon ci réew mi moom bari na. Hmm. waaye d'accord nga ak man ni kenn mënta tërandoo ñaari xar rey leen. ah c'est clair. mënul nekk il faut ñu tàmbalee ci dara. alors ñun jikko lañu wax fi mu ne yii nga cité ak yeneen yu ñu cité wul lépp luy jàpp ni day yàq jikko lépp leen nekk mi ngi ci suñu viseur. waaye ñoo defandoo lépp n'est-ce pas loolu d'accord nañ ci. beneen bi des ñoom am na njuumte boo xam ni def nañ ko. ci ci seen analyse boobu maanaam xam nga euh, tey jii nangam lii lu bon la lii lu bon la lii lan moo tax ñu waxu ci te wax ci lee bu dee loolu kenn du régler dara ndax suñ jógoon ni dañuy wax ci baar yi keneen ñi lan moo tax waxu leen ci assassinat yi lan moo wax tax ñu waxu leen ci insécurité finalement da ngay mujj. au gré des gens ci seen gis-gis ngay mujj topp di wëndeelu rek mais doo def dara d'ailleurs moom lay borom bi di wax yonent bi boo déggoon li ëpp ci nit ñi mais doo def dara ci ah, kaw suuf si loolu alxuraan la n'est-ce pas mm-hmm. kon loolu da ngay gisit ni il faudrait que xam ni euh, ñun loolu mu ngi ci suñu viseur mais nañu comprendre que ni actuellement ñun nekkatuñ ci posture défensive dañoo nekk ci posture offensive boo xam dañoo bëgg a saafara ay mbir saafara yooyu nag faaw nga tàmbalee ci benn jóge ca dem ci beneen jóge ca dem ci beneen nii donc koy mën a def c'est un boo xam ni c'est un combat perpétuel boo xam ne ñun prétendre ni ñu ñooy régler lépp mënuñu ko sax ñu ci man rek la ñuy def am na ci loo xam ni peut-être génération yi ñëw ñoom ñoo koy eggale il faut que nit ñi aussi comprendre mais dans gouvernement les autorités en tout cas on a les autorités quand même mooy jàppale ñu ci lii ñuy def parce que ñoom ah, ils sont ils sont être pour le peuple sénégalais parce que ñu lañ fi nekkal non waaw oui mais justement mais daf yow pour d'après ni ma la dégg askan wi lañ fi nekkal mais derrière ces autorités la am na benn mais invisible bu leen. ah mais bien ah, <laughs> bien sûr. mais dans ce euh, moo tax nag xam nga oustaz. c'est compliqué. Euh, stratégie bi ñu jël am solo. Mhm. dañ leen di def li tubaab yi wax dos au mhm. ñoom danañ ko am xam nga loi bu fekkente ne sénégalais ñoo ko bëgg ñu ñëw ko teg ko ci seen i loxo te askan wi maanaam député yi wax ni député yi askan lañ fi nekkal. bu askan wi ne bëgg nañ dara kañ yaakaar naa ñoom war nañ ah, koo joxe ah, président yi tamit man jàpp naa ni askan wi la fi nekkal kon bu aw askanam bëggee dara yi tamit loolu moom war na cee taxaw kon yaakaar naa jafe-jafe wur ci am ndax moom damay wax souvent ni euh, le président bu fekkonte ni xëñ na xaw ma ci moom la xaw ma ci ay conseil am la nag waaye tey jii moom waroon na sax anticiper li ñu def nii daf ñu waroon a gàttandu ah sama askan yéen yéen laa fi nekkal yéen da ngeen a bëgg une loi bu jëm ci lii ndax bëggu leen ko li ngeen ko bañee laa ko bañee kon du ma leen xaar sax ngeen àggale processus bi man maay gaawtu ndax gis nañ fi ay loi yum initié yu bari ay projet de loi ba noppi def ko procédure d'urgence dama leen di gaawtu pour wan leen di man lu ngeen bëgg rek bëgg naa ko loolu am na ko sañ na ko mën na ko mhm. te gis nañ mu def lu mel noonu ci yeneen i fan kon loolu ñoo ngi koy xaar moo askan wi ba xam fan lay mujjee ak ñoom ndax xam na ne assemblée nationale xam nga ko ma xam ko ñëpp xam nañ ko mhm. assemblée moom nationale baat bi dong la waaye assemblée moom kilif président lay déglu ca Abdou Diouf Abdoulaye Wade. Oh, ba ci majorité mécanique boo. kon li président bëgg en moom lay def. kon nag ñoo ngi koy xaar ci loolu. ñoom fi ne dañoo soxla askan wi xam nga ñoo ngi jëm ci ay élections ah, askan wi tamit ni la ñuy soxla nañ mais en dépit de tout ça maanaam même même bu doon sax du président de la république. Hmm. ak loi yi nga wax est-ce yaakaar nga ni société sénégalaise bi. Euh, est-ce que ñoragul pour mën accepter yii ngay wax ni man maa koy dégg di ay góor yu sëy ci seen biir gi est-ce que yaakaaroon ne même bu woon sax état beeg gouverneur est-ce que yaakaar nga ne société sénégalaise bi ak ni fi bon diine torox yi fi nekk ak yooyu yaakaar nga ne ñoraguñ nañ pour accès pour ah est-ce que du jafe. ñii nii psychologiquement waaw ñii fi nekk Sénégal tey. waaw bois sacré bi nanguwuñ ko. kenn du ko nangu. église bi nanguwu ko. c'est clair julli ci nanguwuñ ko. kon Sénégal kenn nangu ko. wax dëgg yàlla waaye lii problème bi mooy sëñ Maodo man mii dama fiy jóge keneen ak keneen dafiy jóge ah, sunu doom yooyu nag lañ xamul parce que déjà loo xam ne fi mu ne le programme daal mi ngi dugg ci école bi le Sénégal liggéey na document bi ba pare avec seize sessions fi mu nekk nii yoo xam dañ koy incorporer ci en fait le dispositif éducation nationale war koo jàngal suñu doom yi le genre lan mooy droits et lois lan la ci texte yi ci wàllu adduna ak ci biir réew mi wax ci lu demee noonu képp ku ci am ay yu demee noonu bu la xale yi kiiwee fan nga war a dem kan ko war a boole ñu koo wax suñuy doom à partir de cinq ans de cinq à wax ni duñ ko réussir kon cest à ñun lii moo tax moo tax ñun suñu action bi dañoo bëgg a gàttandu dañuy prévenir te xam na ni foofu lañ jëm xam nga wax naa la ne loi bi am na ay coppat yu wax naa la taxaw nañ ay institution xam mi ngi liggéey ci loolu mais yamu ci système éducatif bi sax dugal ko ci actuellement le Sénégal xam nga la GPA le GPA mm-hmm. mi ngi réunir 143 pays ci àdduna bi mm-hmm, mm-hmm. Ah, Sénégal ci la bokk Sénégal bokk na ci te Sénégal moomu ci bokk yaa cinq députés sénégalais yoo xam si ñoo ngi ci biir di ci liggéey actuellement ñoom li ñu leen sant les députés là xam nga lan la avec plus de pratiquement 14 000 en fait parlementaires dans le monde ñoom li ñuy def mooy fexe ba ci seen parti politique yi ñu def en fait le plaidoyer nécessaire ba poste stratégique yi ñu def fa ay góor jigéen ñu fexe ba parti yi tamit bu ñuy dajee ci seen i biir ñu fexe ba it plaidoyer yooyu ñu koy def ba fexe ba mbooleem ci euh, post yi am ay décision muy euh, commune bi muy au niveau départemental muy sur le plan national ci gouvernement bi nañ fexe ba def waaye bi ci war ba góor jigéen ñi ñu placé leen ci biir kii. dugal leen ci biir. li document boobu da la ko jox nga lire ko. et le Sénégal en fait partie. absolument ñoom une guerre totale fi mu ne ñoo ngi ci yëf yi nee nañ ci sëmbax. ba di dem ndànk lentement quoi. de tooy nañ ci xet fi mu nekk nii. est-ce que d'après li nga wax léegi nii c'est vrai que euh, c'est c'est très compliqué comme Sénégal bokk na ci CPA boobu et tout ça <laughs> ah quelques députés yoo xam ni léegi ñoom lan yow sa jàngat lan lañu ci jublu est-ce que ils veulent transformer le monde wala dañuy def dañuy mën a une guerre contre les les religions révélées parce que su ma waxee religion boole naa ci l'islam boole naa ci masihiyuuna ba parce que ñoom nanguwuñu loolu absolument moo tax ma ne ñoom lan lañ ci jublu objectivement ils veulent le monde de demain wala dañ bëgg a attaquer les religions lan lan ngeen yaakaar na moo nekk seen bopp yi. l'objectif ultime. <coughs> oui l'objectif ultime comme disait Jules Ferry c'est d'organiser le monde sans doxal adduna bi génn ci ah, yàlla sans Dieu quoi du Dieu n'est pas le recours na ci génn maanaam nañ ci génn yàlla xam nga bu ñu génnee yàlla nag libertinage ci la ñuy dem danañ dem ci kaw boo xam ne kenn dootu ko mën a justifier xam nga boo xoolee les droits humains bi ñuy wax ni hmm. les Nations Unies mi ngi defoon la déclaration universelle des jamono boobu boo demee ci article 2 bi boolewuñ ci woon mbir góor jigéen. Mhm. boolewuñ ko ci ku mu neex liir ko ku mu neex di dañuy déglu ni rek tàppeel sax ci internet bi rek. article 2 boo demee Google rek mu jox la exactement da nga gis ni loo ci fekk góor jigéen. mais booba ñoom dañoo jàppe woon góor jigéen ay feebar ñi doon ay góor jigéen góor ah, góor c'est quoi c'est psychologique mais dañoo dem ba un certain 17 mai 1990 ci la Nations Unies décidé retirer l'homosexualité de la classification internationale de maladies génne ko ci feebar yi mais puisque génne na ko ci il faut ñu jox leen ak ak yelleef Nations Unies assigné wu en ci la rencontre de Vienne ci 20 ans yoo xam ne dana ci liggéey pour góor jigéen ñi a jot aussi seen kii parce que yooyu dafa laaj ay waxtaan. Mm-hmm. comme ni nga ko euh, sous-tendre léegi rek. Sénégal tey nit ñi fi nekk am na loo xam duñ ko nangu. Mm-hmm. kon ñooñu il faut ngay waxtaan a ñoom xel subtilement nan ngay fexe ba. Mm-hmm. lii ñu bañoon ñu mën leen sensibiliser et cetera et cetera alors loolu moo waral bi ñu demee ci en 2011 ñu jël en fait la résolution la bi ma lay wax léegi muy les nouveaux droits ci les Nations Unies léegi nag ni léegi kon c' est obligatoire dañu koy imposer adduna bi yëpp. li moo waral looloo waral 2011 lañ ko jël France 2013 la légalisé homosexualité. Mm-hmm. donc réew yi tàmbali di légaliser pression boobu la ñuy def ci Sénégal nag actuellement moo tax Sénégal commencé fléchir moo tax damay wax ni le président bu comprendre woon suñu action. mais si on refuse non seulement danañu ñi ñemewuñ refuser. Ah Sénégal ba 2013 dafa bañ. ba 2013. dafa e bañ EPI bu 2013 xam nga EPI. EPI mooy examen périodique universel mais dafa dafa bañ. ba 2013 2013 Sénégal dafa bañ. oui loolu la waroon 2014 Obama ñëw fi. Euh, officiellement li ñu wax dégg nañ ko le Sénégal n'est pas encore prêt encore bi nag mooy def lépp. ñun français moom kenn duñu ci wax lu ñu xamul. Oh non je sais le n'est pas encore prêt moom moom mooy fi mu ne tey tey tey xëy na mënuñu koo def waaye ëllëg ce gis nga wax naa la ne 2016 la tàmbali fléchir ba tàmbali doxal programme bi ci biir Sénégal 2016 ba léegi ñoo ngi koy doxal. mu jëm à 2026 fi mu nekk nii horizon loolu en fait de résultat pour le moment on le sent ah, pas. ah bon. mais ministère yi foo dem direction yi fépp fi mu ne am na direction genre gaa yaa ngi lëlu ak a waxtaan ci loolu je pense que déggoon nga coow lu fi amoon euh, peut-être daaw jéeg la yaakaar naa ak les euh, kii le fameux séminaire de euh, de de de Sali la. waaw ah déggoon ko. Ah mais ci lan la woon problème boobu taxoon mbir ma éclaté ni ak UNESCO maanaam horizon 2030 moom tamit dafa am programme boobu ba àdduna sépp di liggéey loolu te le Sénégal fi mu ne séminaire boobu li ñu ci leeraloon mais la woon lu ñuy validé waxtaanee ko ba pare. mais ça ça n'a pas réussi finalement il y comment ça ça n'a pas réussi comment ça mais mais loolu nag fi ne bokk na ci lii danger mais na réussir nee naa la bi fa jógee Sénégal tëgg na document boppam boo xam ne c'est sur seize sessions malheureusement dama àndaale document bi mais document bi c'est disponible. seize sessions yoo xam ne septième session bi mooy le genre lañ ci war a jàngal xale yi à partir de cinq ans à dix huit ans lañ ciblé les Sénégalais de cinq à dix huit ans actuellement. Sénégal mi ngi ci biir. mais pourtant loolu am na moment yële ci gannaaw dégg naa ministère de l' nationale surtout même le ministre lui-même mu joxe explication ne non c' pas comme vous le pensez. <laughs> a fait benn genre théorie bu ndaw lan la waxoon. Mhm. yooyu amul dañ ko weddi. mais syndicat xam ne moom moom moo tax ñu dem fa. kon yëgoon na ko ko a noonu. man documentation bi dama ko am. waxuñu dëgg. UNESCO la docu c' est pas vrai li wax. document bi UNESCO doon présenté foofu ak ñi partenaires yi man la du document en entier am naa ko man c' est pas vrai. UNESCO maanaam ñoom aussi li ñu ciblé mooy les jeunes enfants du monde de 5 à 18 ans même tranche bi aussi la Sénégal jël lan mooy genre lan moo war a doon kii yan aptitude la ñuy xaar ci session yi leen di jàngal aptitude. connaissance ah. xam nga aptitude mooy lan. connaissance mooy sa nekkin sa comportement sa nekkin ak aussi euh, man-man boo xam ne aussi da nga ko ci man loolu mooy bu ñu paree ci yow de 5 à 18 ans li ñu bëgg ci yow da nga li nga doon bañ yow sa doom dana ko toléré même su ko nekkul dana ko toléré alors lan moo cay toppaat ban génération kon gis nga subtilement ni ñuy def. mais c'est terrible en réalité enjeu c'est terrible. Ah, enjeu la. <laughs> alors léegi nag ngeen bëgg taxaw comme yéen léegi ngeen xaar mais mais quand est-ce que sera cette affaire là sera mise donc. sur la table des députés. incha allah dès la semaine prochaine bu soobee yàlla. ah ba gars yóbbu ko assemblée nationale. incha allah rabbi dès la semaine prochaine dinañ ko teg ci dinañ ko yóbbu assemblée nationale. actuellement ñun on prépare une conférence de presse moo xam ñoo ngi woo presse bi yëpp. Mhm. wax ak sénégalais yi parce que nag mbir mi sénégalais yi. lañu teel waaw. wax leen aussi le contenu de la loi parce que bëgguñu ko déposer te ñoom xamuñu lu ci nekk ndax xam nga la loi ñi ku fi mas a wax ak Euh, yoon wala euh, nga dem police mbaa gendarmerie mbaa justice danaan la nul n'est censé ignorer mhm. puisque nul n'est censé ignorer kañ en bala muy doon loi askan wi war ñoo xam lan la d'abord ba pare. ci ñoom lañ koy. ñoom lañ koy leer absolument ah, parce que ñoom ñooy subir quoi. c'est ça léegi loo loo mais comment se fait-il que ñoom idée comme quoi. pourquoi jigéen mënut am ñaari jëkkër mais idée boobu c'est c'est quoi ça c'est ci ci ñoom la seen batit la xam nga ñoom seen jafe-jafe bi dans l'Occident quoi loolu c'est une réalité occidentale qu'ils veulent transposer maintenant au Sénégal et en Afrique un peu partout dans le monde xam nga ñoom bu ñuy wax euh, euh, <coughs> actuellement lan moo waral góor war am en fait lu mel ni la CEDEF sax moom mais dafay tere complètement euh, traité boobu ku ko signé mais dafay tere polygamie Ah. te Sénégal signé na ko. pour la polygamie bon. bien sûr c' est à bannir nee loolu te xam nga tant que réussir ñu loolu liñ bëgg aussi du gaaw a yomb il faut loolu ñu imposer ko ñëpp ba nit ñi léegi góor gi ak jigéen ji ñooy bokk kiif kiif yi am autorité ci biir euh, euh, euh, mariage bi waaye tamit amoo sañ-sañ am beneen am am beneen am beneen beneen beneen beneen soxna. ñun ñoo àggagul foofu ñoom dépassé nañ loolu ñoom actuellement ñoo ngi ci ay polyamour ñoom seen yoon nekku ci nga xam ne doom dana judd ñetti baay rek a koy seq wala mu judd am ñetti ndey am ñaari baay te ñoom ñëpp ñooy ñooy sëyandoo seen biir ah. n'est-ce pas c'est ça qu'on ça qu'on appelle le polyamour hmm. donc ñoom toll nañ ci phase boobu léegi oustaz ñun loolu du suñu réalité. non mais man kay def lu xam nga ñun ñun demuñu si leen jafe-jafe la. yàlla xam na xoolal yow ak li ngay bëgg lu baax. ak li ngay taxaw ci man kay sàmm <laughs> <laughs> ak li ngay taxaw ci réew mi. di ko woote ci lu baax ak di ko liggéey ci lu baax. est-ce que mas ngaa xalaat ne xaaral ma dem France ne leen eh nii ngeen nekk baaxul bàyyi leen nit ñi takk ñaari jabar. sama yoon da cee nekk. <laughs> waa léegi lan moo tax ñoom seen yoon nekk ci ñun ni ñuy dundee aussi. question liberté lañ wax dañoo tollu ci jamonoy liberté. fekk on n'a pas encore d'indépendance totale peut-être notre indépendance moo tax nag ànd sàmm jikko yi ni askan wi kon ñun jot na ci ñu wane ni am nañ ñun suñu indépendance. bu ko ñeneen amul tamit mu ay structure yoo xam ne ñooñu tënkit peuple bi moom am nañ seen indépendance te ñun bëgguñu lii duñu accepter mu nekk ci biir réew te sax si leen yéen mu jàll absolument absolument mais après xanaa comme comme li xale yi di wax naan bon li fi bon yi bari na ci réew mi su ngeen pare ci nga attaqué beneen mais absolument bu ñu noppee rek dañuy daal di jël beneen dossier surtout les débits de boissons incha allah mais moom c'est ça sera très difficile parce a un par la loi vente des bois des, des, des boissons alcoolisées loolu moom c'est c'est dans ce pays. ah mais loi la rek. loi moom ay nit a koy defoon rek mën nañu ko défaire. nous sommes pas dans un pays musulman aussi. mais y' a, c'est un pays en fait composé euh, euh, majoritairement de musulmans. c'est pas une raison ah bien sûr que c'est une raison la démocratie suppose quoi. la démocratie c'est la règle de la majorité tout court. oui mais on respecte musulman fi mu nekk nii ngëm-ngëm yi non c'est-à-dire mooy sew sew bi Sénégal ñu gëm rek a fi nekk. oui église jullit ñi ay way gëm lañ ñooñu ay ñu gëm lañu te am na foo xam ne si lu jëm ci ay valeur ñëpp ñoo ci daje alors kuy defal askan wu mel noonu xam nga les normes juridiques doivent émaner des norme sociales. Mhm. nit buy tëgg yoon dafa war a dellu ci nit ñi seen. ay réalité absolument ci loolu la ko war a rote euh, mais mënuñu ñu indil ñun ay loi yoo xam ne si du suñu réalité ce n'est pas possible. waay d'ailleurs jafe-jafe yi nit ñi di am sax loolu moo ko loolu moo koy waral. Mm-hmm. n'est-ce pas alors loolu moo tax. système bi quoi waaw. Eh, exactement c'est ça. Mm. xam nga tey bu ñu nee bëgg a gëmloo nit ñu non non non réew mi souvent bu ñu évoqué rek dañ lay bëgg a tànc ci non non non du yéen jullit yi rek ka fi nekk mais ba tax ñu xañ na aussi suñu àq. maj nous sommes majoritaires dans ce pays là. bien sûr pourtant dañuy ci loolu xañ na suñu àq. muy benn mbir ñaareel mbir bi mais Sénégal du ay communiste rek ñoo fi dëkk. déedéet déedéet. du ay socialiste rek ñoo fi ne. du ay libéraux rek ñoo fi quoi pour pourtant kenn ku ci nekk plus que yow libé euh, libéralisme nga gëm temps wootee nga ci ña la ca wusi wusi la ñi gëm socialisme noonu. Mhm. mais lan moo waral cër boobu ñu jox courant de pensée yooyu may ñu ko islam ak église bi pourquoi. boo bëggee wax rek ñun la ah du yéen rek a pourtant du ay socialiste rek a nekk ci kër gi euh, réew de. mais loolu c'est des pensées peut-être euh, sociopolitiques et là c'est une religion ah, y a une pensée. waaw oui, philosophique économique politique divine, quoi, sociale ah, mais absolument euh, incarnée par des hommes. oui <laughs> <laughs> ne yii ma lay wax ni loo ci topp lu nekk fi mu ne ci ngëm-ngëm la jëm. yow yaa wax Jules Ferry nee na bon tout sauf Dieu bon absolument yàlla mi ñuy wax la wax lañ ko génne mais am na yeneen lesquels yeneen yàlla ju ñu indi. en fait yàlla dans le cadre pensée quoi je veux dire. bien sûr muy Lucifer idéologie quoi. <laughs> muy Lucifer. <laughs> mais Babacar c'est dangereux quoi. <laughs> ah bien sûr loo xam nga vouloir supposer que ne xam nga nit ki bu <coughs> euh, par exemple tey man euh, yàlla amul. Mhm. wala boo gëmul yàlla. Mhm. gëmul yàlla mais am na lu mu gëm au moins gëm na ni gëmul yàlla. Ah, ah, gëm-gëm la fi ils ont cru de ne rien croire. mais loolu gëm-gëm la. keneen ki conviction la quoi conviction la. ngëm-ngëm la. foi la de. kon ki ci des aussi moom it dafa am lu mu gëm. Mhm. ki ko gëmul nag moom xëy na mën naa ubbeeku ci moom mën naa def lu ko neex mën naa wax lu ko neex ndax dund gi. Mhm. en fait bu ñu dee deewee jeex na quoi. waaw c'est fini pour ñoom. ñun nag gëmuñu loolu. Ah, alors lan moo war a tax aussi ñu faiblir ba ñu war ñu yóbbaale ñoom ci seen gis-gis ak seen pensée yooyu c'est-à-dire foofu la danger bi nekk. d'accord finalement gis nga boo mujjee dañuy yóbbu ci benn euh, ruq boo xam ni suñu diggante yàlla ñun mooy dagg idéologie cartésienne quoi. Ah, ma malheureusement. Mal malheureusement <laughs> malheureusement le mot est fort <laughs> alors euh, léegi looy tëjee parce que on est pratiquement la fin de l'émission. donc vraiment di woo Sénégalais yi ci euh, on est à la croisée des chemins. Mm. jamono ji bari ay tumulte. Mm. Euh, waaye nañu xam fi ñu jógee ñun démb. Mm. gis nga même bu fekkente ni du sax diine la ñu invoqué. Mm-hmm. suñu maam yi suñu ceddo yi. Mm-hmm. Euh, xam nga yaa ngi ci toog bëkki dem am na lu ñu doon bañ mm-hmm. xam nga suñu maam yi buñ masaan a wax ak yow nii mm, c'est fini bu naree deñ seen bakkan lañ non non c'est fini seen bakkan mm-hmm. mais loolu dara ëpp ko solo kon suñu valeurs yooyu ñun sénégalais yi nañ ko invoqué waat nañu ko repousser ndax xam naa ne lu ci bari dañ na ci ñun damay wax ak yow ne waa ji moom ah waa ji jaar naa ci kawam c'est extrêmement grave loolu du sénégalais loolu du rek ak ak suñu kii dóor yooyu nag na fi jóg kon sénégalais yi bu ñu bëggee taxaw suñu réew mi bu ñu ko bëggee liñ ci namm ñun ñëpp mu dem ci kanam dara jiitu wu ci jikko ndax jikko rek mooy mën a tax nit ñi li ñuy dox kuñ dénkati nga doxale ko ak mhm. maanute ku ñu jox doole da nga mhm. ko def ci maanute ak yërmande waaye la nga war a def it da nga ko def te par par la du ci am mhm. li ñëpp seqit ñëpp danañ ci am cër incha allah te jalgati du ci am te jalgati du ci am su ko defee ndaw ñi la ñu war a def danañ ko def violence bi am tamit en réalité dootul amati mais da gis ni par contre goutte lay am te bu amee itam li koy réglé dana fi am. te dana dana wàññeeku sax ba daanaka du amati solo. et malheureusement gis nga ni gis nga ni te loolu dafa feeñ sax gis nga ci mariage yi barki démb kii bi ñu wax. Sénégal li fi tas ci kenn xamu nu mu toll. Mhm, mhm. moo lay wax lii. jot nañu toogaat waxtaane waat suñu. d'accord ñu penc yi. penc waat eh, jërëjëf Babacar Mboup ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm mbokk yi ma fàttali ne nga xamee ne wala fi indi mooy mbootaay gi nga xam ne dañoo nekk ci Sénégal di aar ak sàmm jikko yi su ko defee itam ñu gën a tegaat société bii nga xamee ne démb ak bërki démb la fi nekkoon muy suñu ndono di suñu cosaan di suñu diine ñu bañ kenn ku ko transgressé. Mm-hmm. ci yooyu lay dox asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf jërëjëf jërëjëf Cheikh bi jërëjëf ربنا